Mollah Morgun ñun yow la ñuy waxal xolal ñun nañu Ousmane Sonko ëmbal bëgg nañ ñun xoolal Ousmane Sonko bëgg nañ ko ba pare Ousmane Sonko bëgg nañ ko ba pare yow mu laa mur gën ñun Ousmane Sonko ëmbal ñu ñun Ousmane Sonko ëmbal ñu bëgg nañ ñun patriote yi Ousmane Sonko ñun ëmbal ñu bëgg nañ xoolal ñun bëgg nañ la ba pare tam dara mënul tax ñu bàyyi la ñun Ousmane Sonko ñun xoolal ñun ak yow ba pare ba nan la tuumaal li gën a salte yow Ousmane Sonko tuumaal la li gën a bon ñun bëgg nañ la ba pare xoolal ñun ëmbal ñu ñun Ousmane Sonko ñun ëmbal ñu bëgg nañ taal ñu lakk ñu xolal jëfandikoo ñu bëgg nañ Ousmane Sonko yow lu la neex def ñu bëgg nañ la ba pare te kenn mënuñoo taxale ak yow ñun seen yi bëgg nañ la ba ilaa yow mi diini ñun ak yow ba pale ba Ousmane Sonko billaahi wallahi tallaay ëmbal ñu Ousmane Sonko ñun ëmbal ñu bëgg nañ